yéen a ngi gis euh, ki nga xam ne moom la ñu jàkkaarloon moo doon imam bi nga xam ne moo jiite si woon euh, fi nga xam ne mooy jumaay murit euh, ñu koy wax Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou noonu nañu la. waaw jërëjëf ñu ngi leen di fay di nuyu bokk yi nga xam ne ñooy leen di topp yëpp ak fu ñu bàyyi ko di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa di leen ndokkeel ci bis bi di leen ci balaq te ci balaq ñëpp. ginnaaw bu ñu la nuyoo nga présenté wu. serigne Fallou ñu gis ne jogé nga fu sori dox distance ñew fi nga xam ne diwan du passé ñew li nga xam ne juma mourid nga ubbi ko ñew ñëw ak ñom tabaski lan nga ñuy wax ci loolu. waaw loolu de euh du sax lu yes lu lu yag daan am la. euh Cheikh Amadou Bachir ñu gën ko xam ci serigne Bass Ndiaye Ndiaye moo ko daan taxawu ci ndigalul serigne bi Ndiaye Ndiaye la fété won di top to dongay ak tundu wi. dem ba mu yàgg waa Passy sàkku murid di sàkku ku leen di jiite fii bañ ko waxee mu ne nañ ko wax sëñ bi sëñ bi yebal ko fi mu leen di jiite. ñu àndandoo ak ñoom àndin wu rafet di di liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla muy dugg doot bëratawul ci dogalam ren mu wàcc fekk sëriñ bi ah, bàyyi nu fi ak njabootam. Eh, ndegam nag eh, ñu ñoo fi des ci mag xale yi du suñuy rakk mu dénku na liggéey bi. Korigi gi ak bi fi joge dafa seus ma waxoon serigne bakki mi mu ñew jité tabaski gi euh, ndegam bari mo won occasion ci wax ak wapasi te amna liggey bu bes bu ma war sama digënté ak ñom te lu melni lu leen dajalé yombul ma won na ñew jullé ci si ak ñom waxtaan ak ñom lolo tax ñu joge ba Touba ndjay Ndiaye ñew waye du lu bes lu daan am la dañoo dem ba war ko taxaw taxawuko waye amna ñu ko daan taxaw ci gëna rafété waaw ginnaaw bi ñu gisee loolu ñu gis ñu nga ànd ak euh, suñu euh, leader bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, monsieur Diallo monsieur Diallo nekk ci diwaan Passy ñu koy wax ni muy tontu Arouna Diallo sa relation ak waa waa Murit ak sa relation ak ñoom lan la. waaw sama relation ak ñoom dafay ngir wax la ko ci gàttal jiitu na ma tuuti bi sëriñ bi ñëwee fii Touba Ndiaye Ndiaye. Euh, yàlla dogal mu wut barab boo xam ne euh, dafa xëroon ci yar ak jàngale ak defare ak tarbiya te dafa taamu woon loolu su koy def di taqoog ñi mu koy def di nekk ñoom foo xamit dina wéet ak ñoom ba li muy li muy def ci ñoom bu ci noppee dara du ko yàq loolu moo doon sababu muy wut fu mu ko defee ba yàlla indi ko Touba Ndiaye Ndiaye mu nekk fa. boo fekk na bariwul fii ci tund bi tànk euh, fekk nag sëñ Bachir yàgg fee ñëw juróom ak sëñ Moussa Bachiru magam. bi yalla dogalee mu ñëw fi 77 sëñ Moussa Bassirou boole len ak mom mag ñëpp yalla dogal ñu and ak moom ci loola ba seeni dom and ak ñom ba seeni sët and ak ñom aruna Diallo mi ngay wax euh, ma nga dëkk Linguère di taalibe sëñ Abdou Khadir liggéey andi ko fi bi mu ñëwee mu ab te pestef rek ko ñor li ma doon wax léegi ci biir ndax talib yu bari dañoo ràññeewul da ngay wax di woo sama sëriñ ba dina la ko ci fo wara mëna mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa ca doo ko def ngir rek parparloo te te ku ñuy topp sëñ Tuubaa tax sëñ bi rek moo di ëpp sëriñ mooy def muy dindi lu ñu toppi nit rek moom moo tax kon objectif bi wala bit bi sëñ bi rek la war a doon eh, loolu nag ñu bari réeré nañ ko ba dana leen gàllankoor ci fu ñu war a mën a jaare liggéeyal sëñ Tuubaa ca duñ ko def moom nag yolul dal ko bi mu ñëwee gis sëñ Abdou Akim la mu doon seen sëñ Abdou Xaadir bu jaalee mu xam ne doomi sëñ Abdou Xaadir war naa mën a mel nii jege ko mu jàpp ca ànd ak ñoom teewut mu nekk mu defa def la mu war a def ànd ak bokki taalibe ba daayira bi fi mu ne ñi ko ŋànk jiitu ko ci la bokk muy daayira Sëriñ Abdou Hakim boobu ci boppam ànd ak ñoom kar Gaye ak ñi mu fekk ñëpp jiitu na nag ay Bassirou Ndiaye am nañ ay kilifa yoo xam ne ñoo ko soon ci tàmbali ba ba agsi fi ba ñoom ñii ñoo ci ñoo ci nekk ah, relation bi noonu demee dama judd fekk ko ñoom ak sama wayjur la woon ñoom ak sëñ Bass Ndiaye Ndiaye mi fi nekkoon jëwriñ la woon teewul nag ñu amoon maslaa relation bi noonu la demee damaa ñëw fekk ko mu rafet mel na mu war a mel ñu war koo sàmm continuer ko ñu xool nu ñu mën a ànd sàmm ko continuer ko ci ni mu gën a jërëjëf euh, ñu ngi euh, laaj ñu gis ne ci tabaski la ñu ne ñu gis ne mbir mi am na mbir mu xew wa tabaski bi dafa ànd ak li nga xam ne pandémie bi di Covid 19 mu del si mu jaaxle askan wi commencé jéewaat jaaxle commencé waat euh, tiit am tiitaange léegi yow yan mesure nga ñuy wax ak lan ngeen woote ci yan mesure de barrière la ñu jël. waaw loolu moom li ci suñ mën taxaa wax ju njëkk ji doy nun ay taalibe lañ yoo ñu ko xalaat. mën nañ ko wax xalaat bi mooy li sëñ bi wax nañ ci tënku sëñ bi lu mu waxoon li ñi ñi ci seen xam-xam màcc li ñu digal nañ ko tax ñu te itam sunna loolu la ñu digal mas amee ñu moytu kenn ku nekk fa nga nekk bañ faa jógee loolu fekk nañ ko muy sunna beneen bi ci ëpp solo mooy li ma waxoon sànq ci biir euh, am na benn euh, parenthèse bu ndaw boo xam ne dugal naa ko ci euh, li fi xew ci xeeti mooy yàlla ñu ngi wax borom ñaari tur yi ak rey bu bari bi sàccante gi dara Euh, ti ci ndegam toll nañ jamono xam ne xëy na suñu borom raaf lépp delloo si ko dootu am ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi mujj wàcc ñëw na nee na lépp lu ñu dal ñun ñoo ko fàggu suñu loxo léegi nag ndegam nëmmagu tukkal adduna bi buñ defee lu ñu war a def li muy def mooy yar nu caw ñu yarum mbugal sawtu azab yarum mbugal boobu nag bu ñu tuubee delluwaat toppi yàlla te tuub lu ñu weesu te jubal suñu borom da koy tegg ci coobaram waaye kaaraange gi gën a mag mooy ñu delloo ne te mooy euh, mbirum suñu borom jeex ci noonu rek nag moom moo ciy gis-gis bi. ngeen euh, sëñ bi lañ àndaloon noonu bu ñu léegi ñu ngi woon ci diwaan fi nga xam ne mooy euh, juma murit gars yi gis ngeen kàddu yoo xam ñu sànni ci parce que gis nañ ni ci li nga xam ne ni la ñu nekk muy tabaski tabaski ku xam-xam ne di événement bu rëy di événement bu jaaxal ñëpp di événement bu metti événement bi dafa am nu mu baaxoo ak nu mu bindoo événement bi dafa ñëw andiwaat leneen muy pandémie di Covid 19 maanaam. coronavirus daanu si ci suñu kaw ñu dégg médecin li ñu ci wax ñu dégg imam yi tey seen xutba yi ni ñu ko waxee kon gaa ñi ñu fexe jéem a jël mesure de prévention yi jéem a jël mesure de barrière yi respecter la distanciation yi gaa ñi ñuy raxas loxo yi ba mu set ndaxte tabaski dafa bëri jaxasoo dafa bëri ay affaire yoo xam ne nii dañuy dugalante di génn lante parce que mbiru famille la mbiru retrouvaille la kon gaa ñi Passy ngeen àndat ak alim Gueye ba beneen moom ci yeneen i melo